forage jàmm ci xibaar yéene kaay yi nga xam ne nag moom la xëyandoo yi bu dang day xotti tubay carrément Ousmane Sonko ko doon amal bi dañu xam ne nag ñoo moo jiite groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko mii daal dafa yeb ñi nga xam ne daal ñooy askanu réewum Sénégal waaw dafa yeb député yi nga xam ne daal ñoo nekke fii ndax kàddu yi nga xam ne daal yëkkati na ko ci jëmale ko ci fànn mel moom kay dafay xam ne waa ndokk bu fekkee ne dañoo génn bàyyi maak assemblée nationale bi loolee baax na ndax ay député yoo xam ne daanaka daal majorité mécanique moo fa am maanaam daal ñoo xam ne daal la neex njiitu réew mi loolee lañ fay doxal waaw la leen neex lañ leen di wax lañ leen wax daal noonee lañ lu mën di xew fan la jàpp yéen fi lu toll ci ñetti fan daanaka jàpp nañ fi ci ay kilo cocaïne yoo xam ne daal teg nañ ko ko loxo loolee nag bu ñu ko xayma ci suñu koppar dana mat lu toll ci ñaar fukki milliards yoo xam ne daal jëm na ci réew mi président Macky dañuy sàkk moo di li nga xam ne nag moo di li nga xam ne daal dañu koy tuumaal ci réewum Sénégal ngir mu mën a ñëw andi ci ay ay leeral dañoo jàpp ne moom sàll moomee moom sàll ngaar yi moom rek moo mën a andi ay leeral li leer dëgg mooy transporteur yi nga xam ne nag ñoo nekk ci réewum Sénégal ndax lépp loo xam ne nag jëm na ci jiw wi nga xam ne daal dañ leen ko daan dox yéenekaay bi di xamal ne maanaam daal njëg yokk nañ ko ak opérateur privé yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal jafe-jafe yu métti la ñuy jànkonteel yenn kay bi di xamal ne mën nag gaynde Sénégal yi tey ci ngoon lañu war jàkkaarloo ak di nga xam ne nag ñoo di Kenya bu juróom ñaari waxtu jotee yéenekaay bi sursa di ñu xamal ne ak lu mën di xew ñoom daal dañuy gagner toog rek maanaam daal bu ñu gagner mën nañoo toog waaye bu ñu ngàmmaaralee daal ba ñu gagner leen ci bi nga xam ne nag mooy match bi nga xam ne moom la war a amal tey ci stade arbitre match boobee maanaam daal doyut ñu bëri ngir mu arbitrer match boobee nga xam ne moo war a dox ci diggante Sénégal ak Kenya ak lu mën di xew daal doy na ko doy ko na ko teg Elhadji Ousseynou Ndiaye